xale yi woy te baayam def ko moom nee na ma continuer ci li si Hadj Malick wax mu ëpp njëriñ ci jaamu yàlla yi waaw kooku de man xaw ma nu ma ciy taxawee xanaa ma def li nga wax rek si incha allah loolu lay def waaye Seydi Hadj Malick radiallahu taala anhu nit ñëw na ci moom moom Maodo ak ni mu feeseeg xam-xam ni mu feeseeg may ni mu feeseeg cër kooku ni ko dama laa bëgg a dénk sama bopp yow rek ama ci doy mu ne tekk ba yàgg mu ni ko wóolu nga ko wóoluwul boppam waaye kon ma jël sa loxo bi ak sama loxo bi teg ko ci gannaawu cheikh na ahmada tijaani mu teg ko ci gannaawu maamam rasulullahi mu boole ñu ne wàkk roqanti ba ci kanamu yàlla kon xaj malik radiallahu taala anhu lii wane mayam di wane ngëmam di wane cëram su mbooloo ma saan fàq ñëw ni ko noo ngi ni yaanu doy dafay gis ni ñii njabootu yàlla lañu te foo leen jàlloo fu dul yàlla dañuy perte mu daal leen di orienté ci yàlla jóg seen diggante ak seen borom te loolu kat mooy charte ci tariqa bi tariqa bi borom Seydina Cheikh Ahmed Tidiane nee na boo ñëwee ci muqaddam ni ko damaa bëgg a jël tariqa bi mu gaaral la charte yi nga dégg ko sa nopp ni man nga te mooy condition yi mu lay wax maamam rasulullahi mu naan xalloo bayni wa baynahoo jóg leen sama diggante ak taalibe boobu la maa yooyu yore tarbiyaam loolu la Maodo appliqué moo tax ku mu jàngal ba nga xam rek libéré na la ku fa tëbb si woon tëbb na la ba pare libéré la bàyyi la ak sa cin du la ci ñaan mukk xorom ndax ku la wàllu safara moo la ko ëppale ku la taal moo la ëpp safara yal nañ yàlla fayal si xaj Malick Mawlana Cheikh xaj Malick moomu lii waa ji laaj ni dañu dégg ni Cheikh na Ahmed Tijani dundandoo na ak Cheikh Umar dundandoo na ak Cheikh Umar douze ans waaye gisante wuñu am na benn téere bu ñuy wax kashful xijaab Cheikh Sukayri Ahmed al Ayashi moo ko bind nettali na ci ne ittisaalu ruuxaani Cheikh na Ahmed Tijani def na ko ak Cheikh Umar di ko xamal lenn baat yu mu war a def ci rimaax pour firee ko jawaahirul maani ba nga xam ni moom la rimaax wër te booba ñoom ñaar ñu ngi bokk di dund dundaloon nañu douze ans li nga bu baax de Sidi Hadj Malick radiallahu anhu mi ngi gane àddina mille huit cent cinquante cinq Cheikh Umar disparaître mille huit cent soixante quatre kon kay xanaa dundaloo nañu neuf dundaloo nañu neuf ans kon ñooñu ñaar kay dundaloo nañu waaye Cheikh Hadj Malick mayam daf ci am loo xam ni boo demee ba jub ko day mel ne kàmbu teeg doo ca mën a egg parce que da ngay bugg a daanu ci loolu dootul mën a génne parce que li jaas ba Cheikh Al Hadj Umar bind yónnee ko Seydi Hadj Malick keneen kuñ ko joxoon pour lu Maodo nga toj àddina li jaas ba mu bind yónnee ko Maodo te Maodo ganee àddina ku ñu ko joxoon pour Seydi Hadj Malick nga toj àddina xam nga lan la def ci lijaaza ba mooy léppi tariqa bi zahiram ak baatinam ak baatinul baatinateem biiru biiram lu mu ci doon tënkatuma la ci tënkuma koo ko jox tënkuma koo ko kum ko jox tënkuma koo ko kum ko jox ba yowmal qiyaamati kooku kooku du caaxaan waaye fekk na Seydi Hadj Malick radiallahu taala anhu yàlla daf ko may lu rëy xam nga xaaj Malick même sëriñ yi mu jàngee ci ñoom yéemu nañ ci moom boo demee ci dëkk bu ñuy wax gàdd ndem na ka mu fa fekki woon mooy magay awa góor gi magay awa seede na si xaaj Malick ni diirub li muy nekk ci man daal li may xamal ni yeewu na bay naa fi la moo di day jekki-jekki rek dëkk bi picc lootu sap mbaam lootu ŋaax salir dootu upp lépp ne selaw nee na bu ma ko déggee guddi rek jaaxle bu ma jógee rek dégg ko dënnam bay riir muy naafile te xaaj malik masaan kabbar la yonent bi daf kaane yusalli wa sadruhu azizun ka azizil mirjal si la xaaj malik masaan ni allahu akbar soo déggee dënn ba day mel ne cin lu ñu rosi ngir ragal boromam tabaraka wa taala rek kii nag ku bëgg a nekk taalibeem bëgg a jaar ci jaar itam nga xam ni jeex itam mooy exemple ci jamono am nga liggéey mais ah la base ah hum, ah ah hum, وأن وسيلتي رضا ربا hum.
الحاج مالك
wallahi وكل حصل wallahi الموقف ما نجعل wallahi هاي أنا كنت جيب سيري wallahi وكنت أجل سيري يب hum, فيأكار نجل مع علماء كل رغب يزيو hum, لتقوني وأن وسيلتي رضا رباني Mhm.
الحاج مالك الوجه الثاني Mhm.
هم المقدمين والوصايا Mhm.
والمتأخرين والله wallahi رباني جميل رضواني يوم والله.
طريقة الجاهل.
wallahi kon lo lu amul alaay jab lay sow ci daga naa ko def lu amul témoignage baaxul maanaam li may wax nii li ma junji bu ngeen ko seetloo di ngeen ko gis li ma ne mbiru Seydi Hadj Malick boo ci jubee day mel ne da nga bugg a daanu ci kàmb doo ci bugg a daanu te doo ci bugg a bañ a daanu waaye ma joxe beneen bu gën a garaaw du ma tudd tur gaaf parce que jamono dafa soppiku waaye wallahi alladi la ilaha illa huwa li may wax dëgg la nit du génne fii ci Sénégal nit du génne fii ci Sénégal di seeti Cheikh na Ahmed Tijani dem def xalwatoom ci raw du Cheikh ay fan yu takku kii darde raw du Cheikh na Ahmed Tijani jekki-jekki ñëw fekk ko fi mu toog ni ko looy wut mu ni ko Cheikh na Ahmed Tijani laa seet si woon mu ni ko loo bëgg ci moom mu ni ko xutbaaniyatul kubra lay wut ci moom mu ne ko cheikh génn na rawdu bi léegi xëy na léegi mu del si si tuuti saaxibul fayd saaxibul xatmi alwilayati almuhammadiyati rabbani algawsi alsamadani alaarifi alrabbani barzaqi albarasiqi saydu cheikh ahmad tidiani dellu si sol yére yu weex tàll parce que cheikh bokk na ci ñi yàlla mën a multiplier seeni jëmm yu bare bare bare bare ba mu ne saraax góor gu jóg taxaw jabu nangam laa bëgg nangam laa bëgg nangam laa bëgg ba tudd xutbaaniyatul kubra cheikh ni tëwit ci loxo bi ni ko dellul Sénégal Tiwaawan caabi loolu dénk naa ko alxaaji Malick Si
الأخيرة أبات يا لم الهدى لما لم يرى فما الخطوب ألمتي de garde ko danaa ko soxla léegi garde ko ma yeggale tuuti dinaa ko soxla nag dénk naa caabi loolu Seydi El Hadj Malick góor ga bañ a rëy parce que nitu yàlla la dellu si waaye bu mu ne cëpp la doy waar ci mbir ma laata muy egg si Seydi El Hadj Malick woo Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu woo maam Saïd Nourou Tall radiallahu taala anhu woo Baye El Hadj Mansour Sy radiallahu taala anhu ni leen dem leen ci saxaaru ngoon ngeen gàttandul ma sama gan bopp bi wago ba ca topp ñaareelu wago ba ci côté ndeyjoor bi fa la gan gane xam nga li ma doon wax démb ni tariqa tijaaniya du ñu waxe ay miracle parce que miracle du defar nit mais teewul liñ ci am kenn amu ko ci ah ñett ñooñu tempang tempang yegg ca gaar ba taxaw ne tem gaar ba am na gan kero de Baye Saïd Nourou Tall Baye Seydi Aboubacar si Baye Alxaaji Mansour si ñii ñàkk gaar ba am na gan ñu taxaw tem bopp bi taxaw ñu xool première waga xool deuxième waga Baye Seydi Nourou dugg nuyu góor gi ni nuus ci walis bi ni ko bàyyi moo ni yónni nee na ñu gàttandu la mu ne kuy bàyyi mu ne Seydi Hadj Malick góor ga yuuxu jabu ni cheikh wax na dëgg cheikh wax na dëgg parce que ki yëg ne maa ngi ñëw te kenn waxu ko ko xam wago bu ma nekk ba yebal ku may gàttandu buñ ne moom la ñu dénk caabi ji wax nañ dëgg nan dem ba mu ne cëpp dafa bokk dàll yi mu ne ko góor gi solal sa dàll naaj wi tàng na mu ne ah suuf su maw du nekk fay sol dàll fan ko xamul ah tudduma ko de keroog ba ñu egsee keroog ba ñu egsee sida xaj malik radiallahu anhu ca teggin ya ca mbaax ga ca yiw ga mu ne góor gi tey yaa nuy jiite ndax yaa jóge ci sunu sëriñ mu ne ko waaw may jiite de waaye suma pare danaa wax de ba mu jiitee ba julli ba pare seydi xaaji malik ne nanu leb tey wasifa timis suñu gan gi bégal nu ci suñu sëriñ waaye ba mu daanee lu mu jëkk a wax daf ne xale li tiwaawan yéen a ñàkk fayda magi tiwaawan yéen a ñàkk fayda fa ma jóge la mu ma wax ci kii su ngeen ko xamoon def lu leen neex te su ngeen dee demal janna seydi xaaji malik gàttandu ko Seydi Xaaj Maalik gàttandu ko parce que nanguwul ku bëtt sharia ni ko ah li nga wax di rëy na waaye benn peru salaatul faatihi de su ma yàlla nangulee benn ba bu boobaa de li nga wax mën a am góor gi alfa may yuuxu ni ko yàlla nangul na la ci lu ëpp benn mu ne ko yow la wóor man wóoruma yow la wóor man wóoruma mbir ma ba mu jeexee ci la Seydi Xaaj Maalik def ata habibi li rabbil hamdu min faasi wa jaana id ataana tiibu anfaasi xasida boobu ci la ko Maodo def ata xabibi ata xabibi li rabbi alhamdu li rabbi ata xabibi min faasi alhamdu li rabbi sama soppe ba jóge na faas te Cheikh na Ahmed Tijani maa ngi santati yàlla ci la mu waxanteeg moom ak lim ko yebal ci man wa jaanaa ñëwal nañu id ataana ba munu dikkalee dikkal nañu tiibu anfaas yi ay noyi yu teey ak ay baat yu teey dem ba naan ataa yu bashiruna ataa wa yansuruna miskan yu bashiruna li mu ma indil jële ko ca cheikh moo ma dàqal parfum bu ñu naan misk ba ñu paree góor gi ne ko nan dugg ci ruq bi ba ñu duggee ci ruq ba Maodo sompal ko mu dem waaye dem tànku ci barab ji ba saxle wëlbatiku ne maa am sama jiwu bopp waaw du jëfi góor de du jëfi góor de du jëfi góor kër Seydi Xaaj Maalik dañoo baax te gore waaye koo dajal ci ñoom xam na lu tas àddina waaye ne naka jekk àddina noonu la mas a mel bërigo yi widd yi rek ñoo ne ci tali bi di xërën xërën yi waaye yu fees yi du yëngu du yëngu Cheikhna Ahmed Tidiane tariqaam li ko lal moo di taqwa llahi boo demee ci rimaax boo demee ci rimaax Cheikh Alhaji Umar ma ngay firi yi nga xam ne mooy dolli ngëm yàlla di ko dénk waa tariqa bi Cheikh Umar nee na wax ji yàlla ni wa wa man yumin billahi yahdi qalbahu ku gëm yàlla la ñuy xamee ni gëm nga yàlla sa xol day jub waaye gëm yàlla te doo xalaat lu rafet mukk jëmee ci sa naw la bëgg a bokk ci tariqa cheikh te lu dal sa mbokkum julit wala sa mbokkum nit nga yéene ko ko kooku mën ngaa gudd course waaye jëfandikoo ba tariqa bi tariqa bi anwaar yi ci nekk di bàyyi ko ci azkaar yi ak asraar yi ku koy jëfandikoo te muy dëgg ci yow dootoo am jot parce que waxtu wu nekk yaa nga aju ci yàlla waxtu wu ne yaa ngay méditer sa borom doo siis doo soxor doo añaan doo yàkkamti doo bëgge doo doyadi tariqa Cheikh Ahmed Tidiane ku ci bokk modèle nga war a doon Seydi Hadji Malick nee na yàlla jox na ma lu ne la ca gën nee na giir gu ne yàlla jox na ma kë ca gën kooka kë kë ca gën la mu gën le mën na ko yàlla dénk te daf ko wax rek ngir sant boromam fa bayna yaday mawlaaya ma ziltu waqifan
fa bayna yaday mawlaaya ma ziltu
fama ziltu fama ziltu xaaji malik nee na fa ma ziltu musuma dañ mukk man Maodo waaqifan di aji taxaw bayna yaday mawlaay ci sama kanam borom waxtu wu ne maa ngi taxaw temm ci kanamu yàlla ñu ne xaaji malik waaw booy taxaw ci kanamu yàlla looy yóbbuwaale mu ne zalilan may ko toroxlu rek xam nga nit yàlla yi dem nañu ba ne doomu aadama yépp neeyaa lañ yàlla rek mooy existence kenn nekkul yàlla rek a nekk xam nga lu tax dañ koo firee ñoom bismillahi rahmani rahim nitu yàlla yi dañoo song baawul basmala ñenn ñi ne waaw baa bi lu muy firi ñu ne moo di baaqin baada fanaa il xalq yàlla fiy des gannaaw bu mbindee fi jógee ñenn ñi ne kon nañ ko teg fële nañ ko firi beneen firi ñu ne luñ koy firee ñu ne baa bi moo di baasitu rizqil xalq yàllaay joxe wërsëgu mbindee fi ñenn ñi ne déedéet nañ ko teg fële baa bi kat lu loolu ñu ni moo di baaisul xalqi baadal mawt mooy dekkal mbindee fi gannaaw bu ñu deewee ñenn ñi ni déedéet baa bi du loolu baa bi moo di bahaullahi wa haybatihi wa jalaalihi taar bi sunu borom làmboo ba muuru ba sori te jege te kenn mënu koo daj kenn mënu koo làmb kenn mënu koo mos lu dul aarifina billahi yi mu ngi ko nëbb ca baam boobu xaaju bari ni kon fama ziltu mosuma dañ man waaqifan di aji taxaw bayna yaday mawlaaya ci kanamu sama borom ma taxaw fa zalilan di aji toraxlu xaqiiran di ko xeebu réyuma de mustaxiisan may sàkkoo xettaliku li shiddati ci sama tartar waaw ba mu taxawee ci yàlla yàlla ni ko may kan mu ni ko yow da rabbun tabaraka mu ni ko yaay kan mu ni may abdun zalilun رب تبارك أو رب تقدم أو رب تعالى علوا ربي الله رب تبارك أو رب تقدم أو رب تعالى علوا ربي الله
déedéet fama ziltu musuma dañ de man Maodo waaqifan di aji taxaw bayna yaday mawlaaya ma taxaw man di abdun zalilun di jàmbu toroxlu fekk yàlla muy rabbun tabaraka ndax dégg ngeen li ma wax xaaj Malik nee na maa taxaw ci kanamu yàlla di abdun zalilun di jàmbu toroxlu te jàmbu toroxloo egg ci yàlla yàlla moom di rabbun tabaraka di buur bu bari yiw di buur bu barkeel di buur boo xam ne màgg na ëppanti naag di yor melaw mbindeef buur bi dégg te kenn waxu ko gis te kenn wanu ko xam te kenn joxu informé wu ko mooy rabbun taqaddasa mooy buur bu sell bi mooy rabbun taala uluwan mooy buur bu kawe ba lool lool lool lool lool lool ak kawe ñu ne Seydi Hajj Malik bi nga xamante ni nag noonu la sunu borom mel nan la rasulullahi mel niki nitu yàlla yi di tax ñu bëgg yonent bi dañoo màndi sharib na ala dikri lxabibi mudaamatan sakir na bihi qabla an yuxlaqa alkarmu déglul sharib na ala dikri lxabibi mudaamatan nitu yàlla yi ne ñu naan nañu sàngara ba màndi te booba raisin mi ñuy créé sàngara bindaguñ ko ñu ne leen fu ngeen jëlee seen sàngara sax ñu ne tuuru yonent yàlla muhammad la ñu naan fam ngeen ko naane mu ni ci aalamul arwaax bi yàlla y waxanteeg ruu yi di leen examiner def contact ak ñoom ñu ne ndax duma seen borom ruu yi ne pat ñu ne lan moo tax ñu ne pat ruu yonent yàlla muhammad ni ñokket ni ko bala a kay
أولم يرى ألست بربكم والروح والرحمن وكان مناديا
mu ne gis nga foofu foofu bëggoon naa tuuti ñu xaraw lu déglu parce que yi ma bëgg a teqale dafa diis ak man lu tax mu diis ak man lu ma ci ne cas bëgg koo wax bëgg a xalaat nan lañ koy xalaate moo tax mu diis ak man amu ci nag lu ma jàngul li may wax alastu bi rabbikum ku la raw keroog la la raw keroog la la raw ku la jiitu keroog la la jiitu koo xam ni jiital nañ ko démb nag nga egsi tey bëgg koo weddi la cay xew yaay weddiku koo xam ni jiitu na la démb nga egsi tey bëgg koo weddi xam nga lu cay xew la cay xew yaa cay weddeeku waaye moom du weddiku كان الله ولا شيء معه ففي ذلك الوقت أعطى ما أعطى وفضل ما فضل فلم يبق إلى الرضا والتسليم sunu borom moo toog ci nguuram gi amul conseiller technique amul support kenn dimbaliwu ko mu tëral li muy tëral jiital ñi muy jiital toftal ñi muy toftal xam nga lu fi des ñett ñett rek a fi des dogal loi nangu déggoo ma de ñett a fi des de dogal loi nangu dogal yàllaa ko moom noppi na ci loi la buur yor ji tëral nangu baadoo la wala mu sonn sëy bi dafa mel ne daal nit ñi dégguñu li ma wax ñett a fi des dogal loi nangu dogal yàllaa ko moom noppi na ca dogalatul dara lu jamonoom jot rek mu génnee ko luwaa la buur yor nangu la baadoo la yor koo xam ne nangu kese nga yor nag soo bëggee dugg ci dogal wala nga bëgg a dugg ci luwaa problème lay jur ah problème lay jur ruu rasulullahi ba mu ne ñokket ni balaa aha kay yaanu moom ma ngi ko waxee ci cadre anbiya uye ruu Cheikh Ahmed Tidiane ni ñokket ci cadre awliya ni balaa moo tax ñu niroole ñaar ñaar yonent bi daf ko niroole Cheikh xaw ma ku bokkul ci tariqa bi wala ku ko gëmul wala ku ko soppul wala ku ko jàngul waaye ku ko gëm sopp ko topp ko doo xotti xormay diine mukk parce que cheikh daf ko doon ne ci maamam rasulillahi saxaaba yi duñu xotti xormay diine mukk balaa jaa tax foofu nag dana gêne sëriñ bi waaye mu baal ma yàlla ma gën a jege foog ma firi wax jooju bàyyi alaji Mansour wax foofu le salawatullahi wa salaam
الحاج منصور أمر لما أنس بربكم وروح الرحمن أول من لبى ألست بربكم هو الأرواح جنود مجندة الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف xam nga ñett dafa mat a xàmmee ibnu abbas nee na bala may ñëw ci alastu bi rabbikum wërsëg ruu jëmm ñett yee dend de yàlla bind na wërsëg ñeenti junniy at door a bind ruu banqal sa baaraam xanaa kon wërsëg am ak ruu yàlla bind na ruu ñeenti junniy at door a bind jëmm yi jëmm bu ne mu wutal ko takk ndeer buy niroog atome aj ko nag ci suufu arsh bu sa ñaari way jur yi àndee ba nutfa almani yi esperme bi wàcc ba dëppoo ak ovule bi nga xam ni moo fekk nekk ci jigéen yi بملائكة والله سبحانه وتعالى ما يشركون ولو أن كل الورى أجمعون
ما
الله اللهم صل وسلم على نبينا أن تدوم وتنم إلى قيام الأنام وأهل الأرض فما شاء كان وما لم يشاء شاء كان وما لم يشاء وما شاء كان وما لم يشاء وما شاء كان وما لم يشاء أكان وما لم يزال جميع كيف شاء احتكم ويفعل في ملكه ما يشاء تعالى الإله وجل الحكم ألا اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم فلا تدوم وسلم إلى ديار الأنام قد نفلني وقد خاب في من سواك الأمل وحبل رجائي سواك الغضب ولم يبق إلا عليك حماد وما لسوى باب الكون اللهم صل وسلم على نبي الحكى بالهدى والكرم فلا تنتظم وتلق إلى رقيتي إنني غريق وها أنا أقرأ إن الندم وإن لم تكن آخذا بيدي وإلا فيا كلة لحدا اللهم كل يوم ما ربك تبارك ربك يوم وهل تكون أسألك أنفك يا صديقي طريعا بقلب سليم ونهج الأمام فإن لم تكن آخذا بيدي وإلا فيا فلة للقدم أسلم على نبي الأتى بالهدى والكرم صلاة تدوم وتلقى إلى قيام الحنان بل تكرم تكرمت كرمت ويا بغلاتي مما أهم وهم الصلاة على المصطفى شفيع الخلائق في المصطفى فكيف إما أهم ثم الصلاة على المصطفى شفيع الخلائق في المصطفى mu ne yàlla bind nag arwaax yi ruux bu nekk nag mu wutal ko jëmm jëmm ji nag mu wutal ko melo tuutil meloo muy niroog atom mu aj ko nag ca roon arash li bàyyi ko ci góor fekki la bàyyi ko ci jigéen yàlla yebal malaayika lo muy muy muy garde loola di ko ëcc ci kàttanam di ko ëcc ci kàttanam ba ñetti malaayika liggéey ca tokkentu maniw bi bi mu ne cëpp wàcc malaaka garde na ko ñeent fukki fan door a wàcc bu wàccee beneen malaaka garde ko ñeent fukki fan muy juróom-ñetti fukki fan quatre-vingts jours beneen malaaka monté garde ko ñeent fukki fan muy cent vingt jours di quatre mois malaaka ma nag taxaw naan azakarun am unsa yàlla kii góor nga koy def wala jigéen sunu borom nag rocci melo wa daal di ko roof ci cadre boobu bi nelaw daal di dugg ruuga dugg wërsëg wa ña ngi ko stocké nag teg moo tax boo ñëwee addina gore di cuune nga boo lekkee alali jàmbur duggaale ko ci bàmmeel def lu wóorul moo tax Seydi Hadj Malick du morom jóge na fu ñuy wax meññale ànd ak Baye Moussa Ale Mbaye maam
ñëpp def ñu la ñoon kilifa de
déglu leen de dama leen wax ne damay jàmmante Cheikh na Ahmad Tidiane ak Seydi Hadj Malick moo tax léeg-léeg ma ni Cheikh Ahmad Tidiane yi léeg-léeg ma ni Seydi Hadj Malick du gam-gam le nag du gam-gam le de damay bañ ñu dem ne yéegal nañu Alaaji Malick ba dendale ko Cheikh Ahmad Tidiane yi déglul de déglul de Seydi Hadj Malick jóge na meññale ci Jolof ànd ak Baye Moussa Le Mbaye ñu war genn gëléem yegg si romb benn toolu gerte jaambur gëléem nga daal di ci lekk ñaari ngooñ si daxaaj maa ne yësal gëléem nga wàcc toog jàpp jël kurusam Baye Moussa Le toog mu jekki ba yàgg mu pare ci kurusam ni ko ah Moussa Le nan xaar ba borom tool bi ñëw ndax gëléem gi dafa lekk ngooñu jaambur reesal ko te alali jàmbur la loolu mënuma ko romb jëmaale ko ci waaw ñu xaar ba borom tool ba ñëw mu expliqué ko borom tool ba ni ko baal naa la lépp waaye booy dem nag nan ànd dem ku mel nii laa doon wër fàq fekk Seydi Hadji Malick Seydi Hadji Malick bokkul ak nit ñi de la ma waxoon ca mbaaw